waaw bis moom sant sëñ Tuubaa am ci mbégte lool tamit waaw woo def sëñ bi moom yaakaar naa kenn ku nekk rek maa war ngaa daw wisi ko am nañ ci mbégte lool ak fierté ak contentement gu ma sëkk daal te ñaan sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool barke sëriñ Tuubaa barke Cheikh Massamba waaw mbégte la rek mbégte rek daal mbégte daal lu mbégte daal dunduñu ko ci moom mbégte rek bàyyi ko Touba Darou Marnaan Penjum Mbaawat waaw. da ngaa màggal si bis bi. waaw damaa màggal si waaw. noo ko tuddee. ah mbégte rek ak bànneex ak kontaan rek targal la suñ Touba moom xam nga moom kenn mënu koo fay moom dañoo mënul wax ji quoi mais am nañ contentement daal waaw. ah bi ma xëy de mbégte doo nga laa dund waaw targal la daal. moo ma moo ko yeggalee bis. ah fekkee bi xanaa jàng si xasida yi rek waaw am na suñ Touba moom. amuñu ni amuñu li ñuy wax si moom daanaka daal. noo. benn géej. koo jógee. xayra jàkkay seen. da ngaa wuy si woote bi. waaw. léegi noo yëgee bis bi. ah rafetlu ko rek. di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér dañ yàgg ci gannaawam dañ yàgg dox rek barkib sëñ Fallou. ci barkeb maamam sëñ Touba da ngeen yàgg fee teew si nu yàgg doxal bis bi ci barkeb sëñ waa xanaa kontaan ci rek ak di sant Serigne rek ak xam ne fi réew mi toll moom ñaan rek moo ni ci mën a génn réew mi bari nay jafe-jafe ak situation yu metti moo tax daal fi nekk nii ñu ngi ah, tënku ci ndigal li rek li sëñ Mountakha wax pour ñu feebar beeg. jafe-jafe yëpp ñu jëlee ko fi. nekkoon dëkk Ndakaaru waaye dañoo ñëw fii di waar. Ah, waaw dañoo ñëw ci bis bi. tey naka ah, bis bi moom ni ñu ko dundee mooy sant yàlla rek sant sëriñ Touba bu baax di ñaanal suñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekk suñ borom guddal fanam barke maam Seera Fall yokk taxawaayam bu baax ndax lii moom yombul maanaam lii dafa yombul lu mel nii mi ngi door am ci dëkk bi waaye ñu ngi koy sante bi bu baax. waaw ah, di sant suñu wasila muy sëñ Cheikh Ndigal Fall mi nga xam ne maanaam moom moo fi nekk di suñu kilifa ko sant bu baax maam kontaan nañ lool ci bis bi ndax lii dafa yombul waaw lu jafe la. waaw man xaadim la mam Bamba la xaadim Faye. ñun ñu ngi bàyyeekoo Dakar. waaw ñëw ci bés bi mooy journée xasida bi nga xam ne moom la sëñ Mountakha woote fii ci tubaa di ñaanal ko saa borom yàggal ko fi moo ndax ak ba mbooleem lu lu mu namm liggéeyal euh, maamam jooju sa borom dogal mu mottali ko ci jàmm barkeb Cheikh Ibrahima di sant di gërëm bu baax a baax waa Touba kontaan nañ lool yaaram di ñaanal it suñu sëriñ suñu wasila mooy sëriñ Cheikh Ndigal al yàlla na fi yàgg te